bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Touba ca kanam nur daari ni noo ngi néew baate jora teebal xaq teebale jërëjëf sëriñ Balla Mbodj ci kàddu yi am solo yi nga fi wàccee jëm ci commission leeral bu Touba ci kanam ci lamp yi nga xam ne ñu ngi koy monté ci dëkk bu sell bii di Touba ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaqa gannaaw bi mu nemmukulee boppam gisal boppam seetlul boppam ni dëkk bii di Touba bokk na ci dëkk yi gën a lëndëm ci réew mi mu jox ndigal Touba ci kanam mu ànd kook mairie bu Touba ak Senelec ngir Touba bokk ci dëkk yi gën a leer ci réew mi Touba ci kanam at yi yëpp mu ci dox jéego yu am solo bi ñu nee bëri tàmbali itam Touba ci kanam amuti poto du bu weñ di bu dénk waaye nag li mu am mooy fépp ab làmp war a dem mu yóbbu ko fa te mooy dëkk bi daj waaye ni fàttali ñëpp ne ca tàmbali ba ki nu sëriñ bi booleel nga xam ne loolu ci compétence am la bokk fi nga xam ne moo di ay poto yu weñ daa waxoon waa Touba ji kanam ne leen lépp luy poto weñ bu leen ko laal. poté dénk yi nag noo ngi noonu wéyal leen doxal leen loolu nag mën nañ cee dégg ne kon mbeddi suuf yaa ngoog waaye ba leen fi tali bi dégg naa ci làmmiñu boppam itam ba nu jubee marché occas ci mbedd ya ko wër yépp mu leer nañ poté weñ ya fa nekk lamp ya takkut ñu ne waaw lu tax mbeddi suuf yeeg li wër marché bi leer mbedd mu mag mii ak tali bi leerut ñu ne leen ah ay de kat ñi ñu àndal liggéey bi te nun kat amunuy poto moomunuy poto moomunuy poto dénk moomunu potoy weñ waaye kilifa ga nee na nun waa Touba ci kanam kat bu nu laal potoy weñ yi nanu yem ci potoy dénk yi ñooñu itam ba nu ko laajee ci sama nopp ne luy sababu loolu yi mu ne seen làmp yii du ma nangu ñuy laal sama làmp yi ndax làmp yi dara baaxu ci mën naa xëy xëy yàqu di moo nu ko wax nun waa marché Ocass xaw ma nag ndax loola moo walaabul ngir mu tere ko ci làmp yi weñ yi nekk ci dëkk bi yépp xaw ma ndax leneen la ndax kat secteur bu ci ne boo ci intervenir Touba ci kanam lépp lu muy def domaine jàmbur la ndax amul lenn lu ñu ko pàccal ci dëkk bi ne ko lii sa pàcc bopp la yaa ko war a gérer yaa ko war a doxal yaa ci war a tàmbali am foo ca yem lu dul secteur bu mu jëm rek am na ko gérer bu dee am ndox la maa war xamante ngi fi bu dee ONAS la bu dee lu jëm ci wàllum ndoxum tataay ONAS a ngi fi te boo demee ci ñoom bu ñu lay gàntal mbir itam daañu la wax ne la kat nangam lii bu leen ko daan ko defee nangam ak nangam poto yi itam lamp yii ci loxoy maire la nekk yaakaar naa loolu ne itam bu amee lu mu jox ndigal nañu def leen lii bu leen laal leen lii bu leen laal lee te ñun moomuñ lii moomuñ lee waaye yitte ji mooy fépp fu wala leer ña ko war a leeral bu ñu ko ba amaguti làmp wala leeral ga yeex ñu ne ñu ñu ne nañ ñoo defaral leen ko ndax lu ñu defar la rek waaye moomunu moomunuy poto moomuñuy potoy dénk moomunu potoy weñ cere googu yi nag nga xam ne cere woon nañu ko waa Touba ci kanam ñu toog lu ma diirub ñetti at di monte ay làmp ci dëkk bi yëpp ba ci jamono yii nag bi sëriñ bi jeexee ndigal waa Touba ci kanam ngir nu tàmbalee ci corniche sub Daaru Muxti jëm ci hôpital ba yeesal lamp ya fa nekkoon waaye yóbbu fa ay poto ngir mu àgg ci hôpital bu bees ba bu fa ay poto mu ma dem ci hôpital bu bees ba Touba ci kanam bi mu jotee ci lamp yi te jotagul ci support yi ma mën nañ tàmbalee kon ca poto ya fa nekkoon te tàkkunu nanu ko taal déparé ko ci kër sëñ Sidi Muxtaar ga ñëw ba ci jumaay Touba amaat ay lamp yu jëlee woon ci yeneen barab yoo xam ne hmm. promobile ñoo ko def ay lamp ñu ne lamp yooyu kon nañu ko fopp tànn ay mbedd yoo xam ne bokk nañ ci gën a lëndëm ci Touba bi ci njëkk mooy bi tàmbalee ci station Daaru Xudóos jëm ca corniche sub belal mbedd ngi noonu moo xam ne mbedd mu gën a lëndëm bëriwu fi te kilifa yi bari fa lañ dëkkee waaye mbedd ngi noonu moo xam ne ab hôpital maga nga fa maam poste de santé bu maam jaara Bousso ma nga fa mbedd la moo xam ne ab l'école ma nga la moo xam ne miir bu yaatu tërëy ma nga fa di guddi kër ubbi ko fa doktoor baa fa nekk hôpital ba école ya tey secteur la boo xam ne kenn mënu koo teggi te kenn mënu koo bàyyi tële na màggi foo ko takk weesu na ko te ay lampi weñ ma nga fa waaye amul ay lampi yu yuy tàkk nga ñëwaat fii ci ginnaaw kër sëñ Fallou gii diggante kër sëñ Abdoulahi borom dër bi ak kër sëñ Fallou muy mbedd moo xam ne bokk na ci mbedd yi ëpp solo ci dëkk bi ndax mboolem imaam yi fa la ñuy jaar waaye bokk na ci mbedd yi gën a lëndëm ci Touba jafe-jafe bi tax nag mënuñoo saafara lëndëmaa yooyu nag du lenn lu dut poteau yi weñ yi nga xam ne dañ nañu laal leen yu dénki te bu leen ko laal bu len ko laal gi munu ñu wax lutax ndax argumenté wuñ ko laal len yi bu len laal yela mamum yi bu len ko laal ma ye laal len ko jep man lool la ndax nun moomuñ ci ben noonu ta defar kep ñu ci taxaju ko kon nak téré gi war nañ ko mëna argumenté nañu li motax mané ma laal bu len tay bu len mako war defar na ko defar dir ñetti at boobaak légui fu tàkkutoon dara tàkku fa ay nit ñoo fa defa def lu gën la nga fa daan def muy ab nga ñew ni tam di wéy naan bu len ko laal ba ay ciow ak arrêté ab liggéey di ci am loolu bu jotee il temps ñu leeral ko nit ñi il est temps itam ñu wax ci li am nag mooy gannaaw bi ñu tàmbalee yeesal làmp yooyu yii ba àgg ci jumaa ja jëlaat li tàmbalee ci tokkoor bi ba tool li tàmbalee ci station ba àgg ci ko ñu tokkoor bu mujj ba maire yàpp leen ci kuréelug leeral woolu leen ci biroom tàng jër wex xatt dal ci seen kaw dal yi métti nag tàng bay bonde mel ne tengsi di lemu ci ak photo yam di lem martiku dal ci seen kaw dal yu wér attaqué leen ca la jiitu woon ca lañ joo woon ci ay potoy weñ dikkaat ak ñoom itam ci lii ñu defaat nii ba yegg ci ne sax lamp yi ñu fi da koy da koy démonté yématu ci loolu joxe ndigal ci ko arrêté nanu fi bàyyi ay potoy li mu moom moom xamees na ne diw lii moo ko moom waaye ñun Touba ci kanam amut lu ñu moom ci ay poto bu weñ ba bam ñuy tere ak dink yi Touba ci kanam defar amut ci benn bu waa Touba ci kanam moom li ci war Touba ci kanam nag war ci dëkk bi nag mooy lépp lu ñu war a def ña ko war def baa ñu yeex koo def baa mënuñ def touba ci kanam talibé yi fop seeni ñaari témèr ngir dimbali ngir gatanu itam ñako war def defal leen ko lool nak laalal fi ak bu laal ak ma mom li ak mom mën leen amu ci wàll ta warna naa publiquement ñu xam deug deug deug lan mo tax mu nañu dee leen laal potay denk yi waye bu leen laal potay yi yi su fekkee da japp ne suñu lamp yi da baxut comme nam ko waxee won té marché occas lamp yi du manangu kenn di laal ñu fay def lamp yi nga xane ambulance perdu la bu kenn diko te man na baña garantie garanti su fekkee lool la fas ñu laaj ñu lamp yi nu mu démé su fekkee lan la itam nañu ko leeral nu xam ko xam gu wér gu tax mu terenu lamp yi weñ yii bàyyee ñoo poto yii te ñun moomuñ ci benn poto yii te ñun moomuñ ci benn li am nag mooy dëkk bi ab maire amu fi li fi am mooy ab taalibe bu sëriñ bii liggéeyloo niñ fi tege ab taalibe lañ ko fi tege waaye niñ fi tege ab maire kenn tege ko fi noonu li fi am nag mooy dañoo boole kàttan gi a jëm ci ab maire yi teg ko jël xob ab taalibe di ko tuddee ab maire waaye ab taalibe bu sëriñ Tuubaa ci dëkk bi ay taalibe Serigne Touba itam dajale seeni koppar nga xam ne jëliwuñ ko ci kenn waaye dañoo dajale seeni koppar yoo xam ne koppar yooyee moom ca la kaneen ak kaneen la am ndigal ci Serigne bi itam ci nu koy jàppale ci defar dëkk bi kenn waru cee galang sa morom ci lenn luy defar dëkk wala lu koy baaxal kenn amu ci loo moom ci dëkk bi li mom moy mooy bëggug bi li ñu tax a jub bi li sunu jëf moy luy jagal Touba ak lu koy baaxal yoon cib tali cim ndox ci lépp lu dëkk bi aajowoo loolu nak kenn ci ñoom ñaar ñoo ñi wala koññetteel koññeenteel ku ci gàllankoor sa morom ba bëgg a def te lu baax ngir njëriñal dëkk bi su amee ci kenn ci ñoom muy maire ba muy Touba ci kanam muy maawu raxmati muy ONAS warees naa toog waxtaane loolee te xam ne ak gàllankoor la ndax kenn wuru cee gàllankoor sa morom ndax ndigal lépp lenn la sëriñ bee koy joxe te ndigal lenn la mooy nañu ànd defar dëkk bu sell bi di Touba waay man ci ñoom ko def la waay war a def na lépp lu waay war a def te mënu ko koo def ba mënu koo def ba def nga yeex ña ko ci mën a jàppale nañ ko ci jàppale ci loolu mooy doxee ni Touba ci kanam kon nag li xew mooy dakkal nañ lamp yi ñu tàmbale mu àgg ci ko ñu koor bii nga xam ne lu mat fukki lamp képp a ca desoon mu àgg corniche waaye ci siisu ak kàddu ak bañ gu dëgër gam ci amoon tax na mu wuyal bañam googee ba liggéey bi dañ ko daal di arrêté fii mu ne nii ba wéyatuñ lamp yooyu faneen nag mu tudd xalaat moom ndax koo xam ne la nga tàmbali nee na bul ko yeggale la nga jot def am xelam nekkoon na ci na nga ko dindi kon nag dafiy jëfaneen moom xel xel nagu ak moom kaddu yi mu yëkkati nag ca ndaw ne Touba Ca Kanam moo leen yëkkati ca moo leen yabal ca teenee de daa ma part personnellement koy baa mu fay jëf lenn ngir moom waaye lépp lu ci waay def Touba Ca Kanam ñoo la ko sant lépp lu waay di liggéey itam Touba Ca Kanam nga koy liggéeyal ku la fa fekk na la jox gëddey Touba Ca Kanam gépp ku la woolu ci bureau mi itam na bàyyi xel ne Touba Ca Kanam la woolu ci bureau loo ko wax Touba Ca Kanam nga ko wax bu dee lu baax la Touba Ca Kanam nga ko def muy lu baax bu dee safaan ba Touba Ca Kanam nga ko def mu def safaan bu dee wax ju ñagas la dem Touba Ca Kanam nga ko wax muy wax ju ñagas te dégg naa ne ci jotaay boobee kat woolu na Serigne Xaarim Jeng ci ab biroom naan leen toro c'est toro li ma leen may daa ëpp te ku naan du ma topp diw fu ngeen jëm daa soriwut diggante poté weñ yii nag ak poté lamp yii su fekkente ne toro c'est toro li ma topp diw foo ko déggee fu ngeen jëm daa soriwut am na ci suñu digganteeg mairie mii noonu nag war nañ koo leeral ne ko nun amul benn secteur boo xam ne ci Touba ñoo ko yilif wala ñoo ko moom ñun intervenir képp la ñuy man lu waay war a def lu mu bëgg a def lu mu mën a def ñu ko defal la tax nga ñuy tere lii nag yaa ko xam waaye ko dëkk bi xam xam ñetti at bu ngeen gisee mbedd suuf yi leer tali bi leeragut ñetti at su ngeen gisee ay lamp tàkk fu bari te fu baree bari tàkk fa yëg leen ne xam leen ne ki nga xam ne moom nee na am na lu ci moom ñun mu mumuñ ci benn moo ñu diggal nañu laal leen potey dénk yi te bàyyi leen ma fi potey weñ ñi ko kenn laal bañ ko ko bàyyi léegi am na ci yoo xam ne diirub ñetti at boobaak léegi itam gisuñu fu ci ab tàkkutoon gannaaw bu mu defa tàkk doon nañ ko jéem yoo xam ne dañoo jàppoon ne yu mënta ñàkk la ko tàmbalee itam dakkal na ko fii lañ ci a yëpp loolu nag ñëpp dañ ko war na ko ñëpp yëg na ko ñëpp dégg na ci ñëpp